li lëmb réew mi mooy instant bi CNG départ Alioune Sarr le 31 octobre mandaam jeex gis nañ fee nag set kii ñoo xam te ni mën nañu wax ñoom ñëpp yow gis nga leen ndax chaque jour yaa ngi gis actualité ah mais loolu nan nga ko gisee waaw xam nga paaka kenn du ko jiitu si mbaram mu ñun Sénégal dañ gaaw quoi dañuy wax te wax jotagul tey Alioune Sarr jeexalagul mandaam deuxièmement ministre bi waxagul da koy changé man de dégguma benn ministre wax day changé Alioune Sarr kon dañ si war a teeyaat baax ñu ñu bàyyi si xel si loolu bu baax moo gën attrape niveau bi kenn ku ne di taxaw naan diw ak diw ak diw ak diw loolu loolu ba tey taxawagul loolu ba tey jotagul gis nga bu ñu demee tey bu ñu demee ba war a ba war a changer Alioune Sarr ministre bi am na neneen nu muy taxawee taxaw ne kat Alioune Sarr kat mi ren daf fiy jóge keneen ay ñëw te loolu dina ko waxtaan ak mbër yi ba pare. Hmm. parce que duñ fi teg keneen te waxtaanaguñ seeg mbër yi. bu boobaa nag boobaa après ku bëgg a poser sa candidat nga poser sa candidat mais guddi yiñ toll nii nii nii nii nii nii man yu may déglu yëpp nag parce que man sama bopp laa gëm de. waaw lu te lu ma lu ma dégg ba mu day ma rek moom loolu moo ma day hmm. dégg gu ma ministre bi wax benn yoon dañuy wàccee Alioune Sarr dégg gu wax benn yoon day démissionné te Alioune Sarr jeux olympiques yi day ñëw olympique yooyu noonu Alioune bokku bokk na ñuy diriger foofu noonu bokku na ci chef yi foofu noonu. kon bu ñu sama xel mu gàtt man laay waxee. jàppaguma jàppaguma ni day jóge fii si CNG bi. jàppaguma ko moom moo tax mënu ma ci sore. candidat yi ku ne am nga droit taxaw sampu ne man bëgg naa nekk président CNG. mais président CNG ay def naa fii si làmb rek taxul nga nekk président CNG tey gis nga fi mbër bëre ba bàyyi bëre nekk champion te mënul nekk entraîneur. lu dëgg mbër dàq gën fee cuune si làmb ji dàq fee defar ay mbër comprendre nga kon waruñu xool ay nit tey diw def na àgg na fenn si làmb ji war a àgg na benn niveau si làmb ji bu bàyyee war na mën a téye CNG d'accord ma benn mbër pour l'instant nii ndax kenn para para kenn préparé wul benn mbër mu nekk président CNG tey xamul tax xamul tax mbër boo gis am na écrit bu mu far. mais Alioune Sarr euh, su ma juumul euh, moom euh, Fatick waa la ndax amoon yoroon na écurie Fatick bokkoon na foofu. bokkoon na foofu yoroon na écurie mais nekkul lutteur bu doon pratiqué mais nekkul woon lutteur bi pratiqué. lu mu mënta def yàq na lu bare sa làmb ji mais defar na lu bare bare bare sa làmb ji. nañ si bàyyi xel c'est que des fois da ngay dem ba toll fi nga xam ne gars yi dañuy gëmm rek xool say yàq-yàq rek la ñuy xool parce que peut-être moom niveau Alioune Sarr moo toll foofu parce que boo demee ba ba sa fi sa niveau yam moom mun na bu bu démissionné jot na parce que foo def vingt six ans loo fa defuloon woon dootoo fa defati mais Tyson mos nga génn benn yoon mu taxaw di kaasal làmb mosoo ko dégg kenn mosul dégg Tyson benn yoon mu génn di défendre làmb mosuma ko dégg benn yoon muy défendre benn mbër li coow mbër yi di bari bari bari bari mosoo ko dégg benn yoon muy génn défendre mbër sunu grand la nag respecté nañ ko bu baax ndax tey làmb ji am na fu mu àgg fi nga xam ne moom moo ko fa àggale mais tamit défendrul benn yoon làmb loolu moom moo tax tamit ah ñun sunu xalaat man sama xalaat bu gàtt tey jii même bu bu ko yoroon tey tey premièrement rek mooy bu ko yoroon tey Pikine mbëru Pikine mbëru mbëru Guédiawaye di bëre wala mbëru Pikine war ak mbëru Parcelles di bëre lu fa am bu amee coow dañ naan Tyson dafa farfenn danaan dafa farfenn ndax ah waaw tax daf ah, mais lu mën ta xew sax lay far dañ naan Pikine la far jeex na tey jii nga joxaat ko beneen mbër nga joxaat ko beneen mbër tey am na si ñi nga xam ne lu ma d'accord tey ñu ne jël feneen ki nga xam ne neutre la teg ko mu nekk président CNG bi borom bopp jël mbër toftal si loolu d'accord naa ko mais jël benn mbër rek teg ko nii si kaw ñëpp mu taxaw mbër mérité na mérité woon na lu ëpp loolu ndax gis na joueur football ba bàyyi football dem nekk président dëkk comprendre nga mais kooku lu muy doon football yëpp doon fight pour dëkkam comprendre nga mais bu dee mbër sport individuel la yow da ngay fight pour sa poste xam nga mbër yi pour seen écurie de te lu mu la wax na bu baax a baax a baax da ngay fight pour sa poste parce que ba mu bàyyee la écurie ba daanu muy moom ak waaw waaw mais ñaata écurie ñoo fi nekk ana écurie Ndakaaru. écurie waaw ana écurie Halpulaar ak yeneen yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen. parce mm-hmm. que am na yu bari dafa nekk si làmb ji ñu ñu war a def ay càmbar jàngat jàngat ko waxtaane ko ñu xool li ci baax ñu defar ko lu si yàqu ñu dindi ko ko wax naa ko mos naa ko wax benn jour tey Fatma. Mm-hmm. yéen nii am na lu bari li nga xam si làmb ji man mii xaw ma ko man xam naa lu bari ci làmb ji yoo xamoo ko mm-hmm. promoteur am na lu ñu xam ci làmb ji lu ma xamul man xam naa li nga xam yoo xamuñu ko te bu si nekk am nga sa ay kuréel yooyu yëpp CNG bi noonu amateur yi noonu tey bu ñu dajalee tey kenn ku nekk sa président ñu jël leen dajale leen président yooyu noonu ñuy dem waxtaani fenn bu ñu paree kenn ku ne tey président euh, Giri mooy président de litre en activité bu paree man maay trésorier bi Frazier mooy secrétaire général bi ñee tamit kenn ku ne une a trois personnes bu ñu paree ñu dem waxtaanaat ñun suñu biir ñu génnee xam-xam yi dajaloo loolu mooy puusal làmb jëm sa kanam mais tey mbër mi moom mooy acteur principal ci làmb te moom lañ ci gën a kenn wegu ko si mbër moom la gaa yi gën a yeb ci làmb ji moo ci gën a doy di tey promoteur yi fii tey bu leen mbër yi tanewul benn promoteur tanewul fi mbër mhm. barke Seydina Mohamed parce que nu për nu mbër yi amee ñu réussir noonu la si amee ay promoteurs yi nga xam ne noonu la ñu réussir am ñoo xam dañuy nekk si diggante ba am ñoo xam nekk si suuf rek noonu la yàlla di bindee laay fam si àdduna noonu la yàlla bindee si àddunaam nekk si digg bi ñuy nekk si suuf nekk si kaw mais bu ñu wegantee kenn ku ne jox sa moroom cër xam ni kat man mii maay sa trésor kenn ku ne xam ni yaay sa yooyu yaay dimbali sa morom làmb ji day dem si kanam mais kenn ku nekk bu fekkee da nga jiital sa intérêt personnel làmb ji ni mu ni mu cité nii day gën a cité rek. day gën a cité. luy suñu ka euh, Adama nga may ma ko rek dafa am beneen polémique boo xam te ni dégg nga ko ndax yow da ngay suivre làmb mhm. Balla Gaye ak Baboy waaw gay ak Baboy gis na ñoom ñaar ñuy ànd entraînement fan yi gars yi moom mooy polémique ñu ne est-ce que Baboy war naa entraîner Balla Gaye yow loolu nan nga ko déggee non loolu moom duma si sori ndax xam nga am na am na vie personnelle jàmbur la vie privée jàmbur la Balla Baboy ancien champion la bëri naa ak Balla yàlla def wàññeeku ñu def ñu nekk ay gain bu ñu demee daan di entraîné ñoom ñaar la concerné loolu moom lees mënu see sori quoi. Mhm. waaw parce que mais dafa am polémique euh, ñu mhm. ne comme Guédiawaye ak Pikine ndax gis nga. xam mhm. ñëpp xam nañ ne ab derby la. mais comme ñiy polémique daal yow loolu ban message nga ciy lancé. waaw message bu ma la siy lancé mooy Baboye Guédiawaye la dëkk. école Harpala ba mu ko taxawalee Guédiawaye la doon entraîné combat am yëpp Guédiawaye la ko entraîné. kon tamit tey jii mooy loolu. te Balla Gaye tamit bu nit ñi fàtte. écrit Baboye la la la bu tey bu fekkoon amoon na Euh, ay mbébét wala lu yàlla doon dogal yàlla moo dogal mu ñëw si écurie Balla Gaye ndax man maa ko indi. mais ñoom ñoo ko daan romb di dem géej muy topp seen ginnaaw. ñoom baabooy ñoom commando muy topp seen ginnaaw di dem di ànd ak ñoom parce que mu ngi doon liggéey foofu si rond point Malibu bi. fa la doon liggéey mécanicien ñoom fa la ñuy jaar dem dugg géej mu topp leen. tey mu na am foofu mu nekkoon seen écurie xëy na li la yàlla namoon. jeex na mm. loolu daal moom wax dëgg yàlla mënu ma si sori. Mm. man du ma si sikk kii wala wala diw wala da eh, gis na ni ñoom gisuma ko dara saan ma fee nii chaud ni froid ah. aw ma si benn problème tey man d'accord naa sax tey jii moo war a bëri Maguette Seck ñu bokk di entraîné loolu dafay avancé loolu làmb billaay mun nañ bokk di entraîné jour làmb nag ñu mettil ko ba mu metti ñu paree mu ñibbi ma ñibbi après nekkaat ay gaañ loolu mooy sport sport dafay. day boole mais warul xaajale. waaw sport day boole mais warul xaajale. Mhm. problème bi nag làmb nag dafa xaw a doy waar. Mhm. ndax làmb dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw. problème bi mooy. Mhm. beneen mbëru géejawaay buy bëree mbëru pikin. noonu lay demee nag loolu mooy indi problème bi tey jii nii. tey comme diggante Baboye ak Ama. comme diggante Ama ak Balla Gaye tey Balla Gaye bu bëree mbëru Pikine Ama day am problème Ama bi bëree mbëru géej waaye Balla day am problème loolu mooy loolu mooy inconvénient bi mais nag comme ñoom mën nañ ko gérer ah <laughs> noonu lay demee fi may jeexalee mooy gis nañu monument géej waaye gis nañ ni ñi ngi commencé wàññeeku ndax ku ci mel ni suñu per Mor Fadam suñu daw Daouda Seck ah, ak ki nga xamante ne moom mooy suñu daw Daouda Fall te ñoo ñëpp ay monument géejawaay la te ñoo ñoo daan encadré xale yi yéen instant bi yéen est-ce que yéen loolu yéen a koy bàyyi xel euh, comme monument géejawaay instant bi ñeen daan jege commencé dem loolu est-ce que yéen mbëri yéen a koy bàyyi xel ah, mais ñoo ngi si ñoo ngi si bàyyi xel bu baax xamul tax de kenn mënu ko fàtte de kenn mënu ko fàtte moom kay luñ lu ñu war a wax mooy ñuy gën a jege mag ñi di jël si ñoom seen xam-xam ndax àdduna bi fii dara continué wul dara continué wul tey da ngay nekk ak nit surtout période bu ñu toll nii da ngay nekk nit toog te da nga laajte waat ko ñu ne la. waatu na kon ñuy delluwaat suñu xel si yàlla bu baax a baax te bu xam-xamu mag ñi waruñu bàyyi ñu jël lépp rek yóbbaale ko. Père Mor Fadam man dam ko nawoon wegoon ko trop moom ñoom daaw da sekk amul tax per per Morfadam du dégg lu ñaaw wax ju rafet rek lay wax moom it yore kursam foo ko fekk ba kurs boobu sax si nu ma déggee moom la génnaale àdduna da sekk tamit noonu wax ju rafet rek tey mbëru géej waaye ku si mer sax bu waxtaanee yow nga kontaan ku si rek bu waxtaanee yow nga kontaan day dem si diw dem si diw fu ne fekk buur ñëpp rek nekk benn am na tey defoon nañ fi benn réunion bi nga xam ne lépp moom moo ko coordonné. moo ko coordonné dem dem si nit ñi waxtaan ak ñoom dajalewaat ñëpp ñëpp nekkaat benn géej waaye xumbaat xam lu ma laa kooku dañ koy ñaanal yàlla bu baax a baax baax a baax diggante yooyu noonu mu doon ñaw yàlla na ko yàlla fayee ci àjjana yu kawe waaw adduna noonu la daal mais daal xale yi di jege mag ñi mag ñi tamit di may loxo xale yi loolu mooy adduna. liñ dese ci temps mën nañu wax ni l'émission te tire à sa waxtaan bi neex na. dugg nañ ci làmb dugg nañ ci actualité te lépp nice na di wax rek yow suñu frère nga suñu lépp nga parce que émission bi waroon naa am bu yàgg mais yow tout le temps su ma la waxee nga ne ma ñëwal suma sœur nga moo tax ma kontaan ci yow bu baax a baax yow damay kontaan ci yow ndax tey sa sa mag dafa bokk ci ñun nekk suñu rak ba pare nag bëgguñu rek te yàlla tax Barthez moom ak sama mag tamit ñuy nekk mu bëgg ma te yàlla tax foofu day day gàtt de mais sa papa ak sam papa. moom mooy loolu ñëpp nekk ay wóolëree doo ba pare nag yàlla bool ñu bokk ñu bokk benn tarixa cheikh tamit lu ñu liyee dafa bari moo sama frère sama sœur ngay doon te moom ngay mos a doon comprendre nga ñuy kontaan bu baax a baax émission bi chaque jour ñu war ko bu ñu ko jàppee mu taw tey ji taw bi naroon na ko sax yàq mais xëy na lii la yàlla bëggoon ñu siy santaat yàlla bu baax a baax ndax lu jot rek yàlla def ko lu jot rek mu yomb waa ñuy santaat bu baax a baax may santaat waa Géejawaay bu baax a baax encore une fois di sant Pape Mama Fall di sant Dieye Sène di sant Abdou juuf Maguette Seck di sant waa di sant euh, Maser Fall di sant di jaalewaale sama beneen grand tamit di ko jaale bu baax a baax moom depuis Belgique mooy Alsane Gueye di ko jaale waa Belgique yëpp di ko jaale waa Anvers bi yëpp euh, di nuyu Diol di nuyu Antoine di nuyu Lees sama turandoo depuis Belgique maa ngi nuyu yëpp daal sama soxna samay doom maa ngi leen di nuyu bu baax a baax Aïcha Abibatu Mama Nabu maa leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay ñoom it di leen wax namm naa leen trop <laughs> di nuyu daal euh, di nuyu ñëpp sama gars yi nekk Ibiza Espagne Modou Ndiaye Ndiaga Seck di nuyu Moo di nuyu Demba di nuyu Yoropam Malick di nuyu Barafal maa ngi nuyu ñëpp daal ñëpp ñëpp ñëpp ku ma limul lekk xamal ne xel me kii rek mais. sama xeleng si ñëpp maa ngi leen di bëggee ñëpp waa émission bi yëpp nag bàyyiwuma kenn sama waa neeg ba Omar Mbaalo nuyu naa ñëpp daal di kontaan si ñëpp bu baax a baax a baax a baax di nuyu Cheikh saw bu baax a baax a baax Cheikh saw maa ngi koy nuyu bu baax moom it nit ku baax la waa waaw maam ma Fall di nuyu sama grand Pape Dioum Moussa Fall bu Sa Thiès di nuyu ñëpp daal ndax geej waay ñëpp benn la tey boo ñëwee keroog si kii bi rek da xam ne géej waay ñun ñëpp benn lañ waaw di nuyuwaat Abdou Diouf mi bu baax baax moom sama doom ndey lu ma xewle moom moo siy jiitu moo siy mën moom it Maguette Seck noonu di nuyu ñëpp daal di ñaanal yàlla mbër yi am ñi nekk géej am combat yàlla may leen ndam mbër yi si amul combat yàlla may leen combat ñu am ndam waaw maa ngi sant yàlla santaat yàlla bu baax a baax tamit bu baax a baax di kontaan tamit tey émission bi ñu def ko tey nii nii parce que lu ñu waajal ay weer la waaw kontaan naa si bu baax a baax a baax di ko remercier waat bu baax a baax moom Lesta kon ni mu ko waxee suma frère la suma xarit la ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal yàlla sàmm ko aar ko moom it ndax namm nañ kombaam Maguette Seck tamit ñu koy nuyuwaat moom bu baax a baax ndax tey samay mag rek ñoo ma entouré Abdou Diouf sama chéri chéri événement nga xam te ne bu ñëwee rek la ñuy nekk séeri bu demee du ko dégg di ko béggewaat bu baax a baax moom Adama l'infatigable di ko nuyuwaat bu baax a baax ndax li may wax rek nee naa leen heure bu ko acca mu ne acca di béggee ñëpp Basirou ñëpp daal ñu ngi leen di remercier di ñox di jox ñëpp dig daje prochainement incha allah merci beaucoup